maa ngi sant yàlla ku ne xam na ni semaine bee passé ñëwoon naa ci dëkk bi demoon Kër Ñang demoon euh, fi ñu ndaamaatu ak euh, fi nga xamante mooy jade doon xool askan wi nga xam ne am nañ ay jafe-jafe dimbali leen ci ay moto pompe ak essence ak euh, ay tuyau ñu teg si ñaari fan mu tawaat taw boo xamante ni mi ngi toll ci cent deux millimètres tey lépp loo xamante ni tey amoon na population amoon na ko si jafe-jafe dafa yokkuwaat moo tax bi ma ñëwee la ma njëkk def mooy dem xooliwaat population boobu noonu mm-hmm. ma xam ne jafe-jafe yi nga xam ne amoon nañ ko tey la gën a yokk mm-hmm. ma xool état bi nga xam ne moom moo waroon taxaw ci loolu taxawu si te néew si doole lool mm-hmm. moo tax tey nag ma war a wax ak askan bi nga xamante ni ñoo ñu seetal ñu nekk si biir réew mi ak bitim réew jël témoin si population bi pour xam ne nguuru Macky Sall tàmbalee ko si président de la moom si boppam ak ñi nga xam ay ministère am la ñëpp dañoo sàggane Touba ak population Touba ndax gis nañ ni amul benn concentration boo xam ne am na ñu jëme ko si peuple bi ndax tey Touba fi mu toll ci euh, national ak international fi mu toll si population économique ak ñi nga xamante ni noonu la askan yu sonne nguur gi maanaam bañ ñëw dimbale leen ba leen a jàppale di leen seetaan ngir politique loolu yaakaar naa ne jaarul yarul maanaam loolu moo waral may wax ni Macky Sall dafay nekk di saboter li nga xamante ne mooy liggéeyu Khalife Sall de Mouride ndax ku ne xam ne sëriñ Serigne Mountakha nekkul koo xamante ni dafay nekk di wax loo xamante ni tey bëgg-bëggam la wala di wax loo xamante ni bëgg-bëggam la jëm si nguur gi li muy wax mooy bëgg-bëgg Serigne Touba moo tax makki Sall moom si bopp taxawaay bi mu war a taxaw si wetu wetu Khalife Sall de Mouride dafa des ndax Khalife Sall de Mouride bu fekkente ni dafay jàppale askan wi. moom bu fekkee nguur gi am na ay jafe-jafe mu yëkkati alalam joxe bu population Touba am amee jafe-jafe Macky Sall war na maanaam delloo naar bi xoromam ñëw indiwaat am ndimbalam jëme ko si population Touba munu ma nag nga déclaré or Orsec mu toll si 27 milliards virgule 8 nga jóge foofu noonu dem Kër Massar bàyyi population bu tuuba loolu yaakaar naa ni yenuwul maanaam loolu moo tax ma déclaré makki Sall personne non grata à Touba pour population bi yëpp xam ni mérituwul ñëw sax si màggalu Touba gi ndax population Touba bi gis ñu seen bopp ci nguur Macky Sall gi bi mbir ma amee woo naa Serigne Mbaye Thiam jëluma téléphone woo naa ministre de l'intérieur jëluma téléphone wax naa leen jafe-jafe yi biir si guddi dégg naa ni wax na ni am na ay réunion yoo xam ñu ngi ko doon def ak maire bi ngir bëgg maanaam programme bi war a ngir population bi yuuxoo leen moo war a lool mais maa ngi wax ni population bu tuubaa képp koo xam ne yaa ngi fi bis boo xamante ne Macky Sall mi ngi ñëw ci dëkk bi maa ngi lay sant nga wut benn picc wala benn pitax nga takk baraasa ruus xam ni am nga naqar am nga lu la metti jëme ko si ki nga xam mooy nguur Macky Sall ndax ñàkk gi mu ñàkk a fulaal dëkk bi. dem na ba ci bépp événement boo xamante ne nekk na si Touba muy événement religieux sax Macky Sall sant na ay ministère am ñu bañ faa yebal takk der ñu bañ faa ñëw boo jëlee tey jii Tabaski bi mu jotee benn takk der boo xam Macky Sall joxe na ndigal pour mu ñëw Touba amul te Touba ay mbooloo ñoo fa daje te ñoo war a yor suñu sécurité. bi nga xamante ne màggalu Serigne seex gii bërki démb jot na benn takk der boo xamante ni Macky Sall yebal na ko mu ñëw amul surne xasaat bi mun Mountakha woote woon Macky Sall lu fu takk der kon yaakaar naa ni même màggal gi ñu jëm nii sax yaakaaruma ne Macky Sall dana fa yebal ay takk der ndax comme nee na Touba ñu ngi woote ay ndaje te moom bëggul ñu daje moom du fa yebal takk der du fa yónni ay ministère am di leen jàppale ñun nag sëñ Touba lañ gëm sëñ Touba lañ bëgg lu sëriñ Touba bëgg moom la ñu bëgg. bu fekkee Macky Sall moo tax que maanaam takk der yi bañ fi yàlla moo tax ñu bañ a màggal ñu màggal par force muy taw doon ko def muy naa doon ko def di wax rek ni ñoom ñi nga xamante ni tey ñoo yoru suñu alal yor suñu nguur ñu jox leen lépp loo xam ne ay matuwaay la ak ay jumtukaay war na ñu xam ne Touba du seenu noonu. waaye bu fekkente ni tey Touba taxaw nañ ni Macky Sall mi nga xamante ne moo war respecté dëkk bi respecté wu ko population jël seeni i matuwaay ak seen jumtukaay bañ koo woteel tax mu mere population Touba bëgg see booloo Xasida Murid yaakaar loolu lu ñaaw la kon taxawaay boo xamante ni tey moom laay laase xam ni dëkk bi ni mu bindoo il faut que askanu jëlaa seen responsable bopp xam ne bu nguur gi nga xam mooy ñoom bokkuñu si tey bokkuñu si ëllëg que Macky Sall mi ngi si bopp réew mi Touba gis bopp si nguur gi ndax jubul waa Touba loolu moom il faut que askan wi xam loolu ba nga xamante ni li nga xam moo nekk si ñoom bu ñu ci yaakaar Macky Sall ndax du ko saafara di ñaan xalifa saa de Mouride tamit ni ma ko waxee woon man en tant que talibé ñu dàq maire bi ndax maire bi liggéeyu si dëkk bi. ndax am na loo xamante ni du compétence am am loo xam compétence am la ndax maire bi am na fulla am na fayda joo xamante ni war na ko am pour dem bu population amee ay jafe mu dem masawu leen nekk seen wet mais ku ne xam na ne xam na ni tey bu génnee population bi yuuxoo ko. wala population dal si kaw moo tax ñi mu wut a génn comme ni ñu ko defee maire Kër Massar bi léegi nag moom comme ñoom ñu ngi fi bëgg a ñëw di waajtaay di def ay daje ngir bëgg bu ñu ñëwee population bañ a wax si ñoom dara en tout cas maa ngi lancé appel de alerte aussi xam ne population bi ay nit lañ yoo xamante nit ñu am jom lan nit ñu am ngor lan nit ñu am kóllëre lan bu ko defee bu ñu ñëwee ñoom ñëpp ñu maas xam ni am na lu leen naqari ci nguuru mag Sall ak li nga xamante ni maanaam moo jëm ci mairie bi ñu nag dana lancé appel di lancé aussi de benn mouvement boo xamante ni euh, pour que nu mu gën gaaw ñu jëlee fi maire la mooy mouvement Dégage maire Abdou Lahad Ka nu mu gën a gaaw Serigne Mbaye Thiam li mu wax du dëgg ndax ku ne xam na ne ministre buy wax da war a wax li nga xam mooy li am bi mu waxee man mii di wax ak yow tontu naa ko RFM wax naa ni li Serigne Mbaye Thiam wax amul ndax koo xam ne tegoo sa tànk ci Touba amul benn considération boo jox tuuba yaakaar naa ne bu fekkee da ngay wax war ngaa woon a wax lu am tey bassin Kër Niang amul cure curage boo xam ne def nañ ko moo tax bassin bi heure bu tawee dafay fees du dugg si biir kër yi li nga xamante ni mooy lu Touba si kanam defoon dépp si dëkk bi dañ ko maanaam collecté def ko si maanaam ci réseau bi réseau bi nag benn bassin attunu ko il faut ñu wut yeneen bassin yoo xamante ni tey si dëkk bi pour ñu tasaare ko nga xamante ni léegi ndox mi bu dikkatee dana mën a jàll ñaare bi ñuy teel def ay curagement ba nga xamante ni tey salte bi dana génn si biir canal yi beneen bi comme ni ma ko wax ministre de l'intérieur moom si jëm boppam en tant que taalibe war naa mën a xool ci àll Ngouille Ndiaye bu fekkente ne yow danga nekk taalibe Sëriñ Tuubaa ñu koy war Sëriñ Saliou nekk sa sëriñ yaakaar naa Macky Sall wur laa gën a sa sëriñ kon il faut que nga jël considération boobu nga jëlloo ko ki nga xamante ni mooy sëriñ xam ni kooku rakku xalif sana de murid la ngay respecté Touba yabal fi ñi nga xam ñoom nga fa war a yabal bañ a dégg ndigul Macky Sall ndax tey jii ministre de l'intérieur ñi mu wut a ñëw Touba te Macky Sall jox ko ndigal ministre bi nga xam mooy Serigne Mbaye Thiam mu wut ñëw Touba te Macky Sall jox ko ndigal Macky Sall mu joxe ndigal nag bàyyi na population bi dem na Allemagne kon yaakaar naa Sénégal fi ñu toomee wax président la République mu ranke